oh loolu war a jëriñ Modou Lo loolu a jëriñ Modou Lo Modou Lo yeewaat na coow lamb gaay yi Modou Lo ñëwaat na loolu a jëriñ Modou Lo Modou Lo yàgg na Morlo, xale yaa ngi noonu xale yaa ngay làmb dama ne ku demoon làmb jeex dama ko jàpp le le roi des arènes ñëw na. Thank you. oo Modou Lo war a jaral Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Permitir wari jalan mundur. Permitir wari jalan mundur. xale yi ñëw nañu. xale bi doon wane seen. bu ne woon lamb coow jeex na waxoon am. retour de Modou Lo. retour de Modou Lo. retour de wane seen. bu ne woon lamb coow jeex na waxoon am. le roi des arènes ñëw na Cheikh la ñuy yëg Fadam. le roi des arènes ñëw na. xam nga Modou Lo. ko génnee waatee. le roi des arènes ñëw na joolu yëngu. waaw mais la xam nga mënoo nag. oh moom dafa baaxoo coono. Ah. waaye booy réew mi leer na moom moom réew mi leer na moom réew mi xale yi dañu leer na moom le roi des arènes ñëw na. alhamdulilah. మొదటి పర్వ మొదటి Jawda war gis naa jawda yi. laa ilaaha illallaah kon loo yëg tey. dama ne xam nga ni kii la. loo yëg Sénégal yëpp dañ ko namoon. ah ma ne Sénégal yëpp dañ ko namoon. laa ilaaha illallaah. kon est-ce que xam nga ni Sénégal dañ la namoon. Sénégal yëpp dañ la namoon. man ngay wax Sénégalais yi. léegi le roi est là. looy tey looy yëg looy ko bis. maa ngi leen di nuyu ñëpp. le roi des arènes ñëw na. gis naa Serigne Ndiaye gis naa ko bis. comme d'habitude. comme d'habitude. réew mi yëngu Modou Lo ñëw na xale yëpp ànd nañu ak moom Modou Modou réew mi nga namoon laa ilaha illallah signature contrat boo bëgg a ñëw nag lañ le roi des arènes gaari ko namoon makan meen makan gaari yoo namoon roi des arènes Makar lamb coow ah. lamb coow. ah Makar nee na lamb coow lamb coow neexul. ah. waaw gannaaw lamb. dafa ànd ak coow. mais coow bu civilisé. gis nga li ma la bëgg a yëgal. a dama leen oh. lamb. laay la soo ma wax ay lu tax rek ma wax loolu war a sax mooy lamb. ñu bari nañ ko doon xasee tu ne seras jamais Oh, ku muy bëree ci man am naa chance muy signé ma taxaw mbër mu muy signé ne ko doo nekk mukk roi des arènes looloo la naqali ndax da ngaa gàtt guddoo réew doo nekk roi des arènes mun a xoolal mu ñëw déglu ma bu baax man ak Taïba Ndiaye muy bëre di daan di bëre di daan di bëre di daan ba ñu ne ko xarañ. bu oh! la commencé ba promoteur. la ilaha illallah bëgg Modou Lo. mais Grand Lamine bu xeex. Grand Lamine roi des arènes ñëw na tey. ma ne xoolal dama lay wax ne la kii ku ko nar a génnee lamb doo lamb. ah coow li am fii rek te te demaguñu fenn coow li am fii rek fii rek. kanam gii rek oh. soppi na ko doom. la ilaha illallah ay bu duggee. ay may sa xarit ay bu ñëwee. ay may sa xarit ay bu ñëwee. ay may sa xarit ay bu ñëwee. ah ca tey bi ñëw nañu. Bourkhane Wade ñëw na. Bourkhane Wade ñëw na. waaw. tey daal noor balaa la def. dama doom dama xarit. ah ko su xeeb sa kër. Kandji production. ca doo lamb yëpp gis naa leen tey. laa ilaaha illallah. hey bés bu mag. waaw kañ jéeg jéeg yëpp njëriñ la ko wax kañ ji loo yëg tey. présentation rek. la ilaha nii. Ah, na ay buñ ne rek jàkkaarloo kañ yi ay kañ yi. mais ci eh, jàmm ak salaam lamb coow. la famille jàmm ak lamb coow. mais Serigne. Oh. mu ne woon lamb jeex na parcelle waxal yam